la la ñu toog fii nag fas yéene jot mooy ay kàddu yu néew yu jéem a fexe ba nu mu ko santaane wante suñu làmmee lott na si doon ko jotale ñu jéem ko ba suñu kon kàttan ñu jéem ko moo si si yéene kon ci ndigalu sëriñ bi ndax wax ci kanam sëriñ bi dafa diis ndax xam jotaay bi mu toog xam bi mu doon booy njëkk ci tur bi faaw mu gis yow. kon ñu ngi nuyu bokk jur yëpp di nuyu bokk si di leen dokkeel ci weeru tëdd yi di weer koor nga xam ne ñëpp xam nañ jiite ak posture bi nga na ko ci ñu fas yéene ko dundal ne ko lislaam santaane dàkk ci ñu ko Sëriñ Tuubaa da dundale mu yóbbante ma nag ay kàddu jëme ko ci taalibe bi ji murid bi xam ne ñoom la suñuy digal sañ leen a tere kon kaddu yi ñu ngi jëm ci bokk taalibe bi ji ndax ñoom loolu rek di seq ñoom di ko jëmalee ci mboolem mbokku jullit boo xam ne ñoom ma yàq wala nasiihata min axiihi muslim kon mooy kaddu yi nga xam ne jëme na ko ci yéen kaddu yi nag mooy ginnaaw bu ñu leen santee ci li leen si lépp mu am tuuti ay leeral yoo xam ne da ko fas yéene jëme ci bokk taalibe bi ngir ñëpp maase ci xam ab tolluwaay ak fi mu toll ak nga xam ne fi la nekk loolu itam dafa war a leer ci ndax ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa li la war mooy santaane digle ak tere loolu rek ngir seq nit mooy samihaanaa wa loolu rek lañ am ci suñu digg mooy lépp loo xam ne sëriñ bi santaane na ko rek بوبا أموتوا لي سلطان ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قدر الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم كون جبت المسلطان رك جهي لك اللي انت وردك سلطان بنك موي ليرا رك موي فم طلع ندير حملة لبت الله أنا بيبي نقوم موي الله أنا ورنا أني أي رني رني ولا أني زان سعدوكي بيري ولا أدمسي فهمت أنك فهمت أنك فهمت أنك nee moom fi nekk fii la yéen a bokk jur ñëpp ne fa bokk taal yëpp ne mooy ñëpp maas yi ca xam ne lépp loo xam ne luy indi fitna ci biir réew mi na ko ñëpp wattandiku te sax jàmm te xam ne Serigne ci loolu la nekkoon ci loolu loolu la santaane ndax lu ne mos lu ne def nañ ko ba tàyyi waaye lu ñu ko mos a def wax mooy jégal naa leen mm. kon Serigne Touba xam ne lu ci لي خامن دا موي ليغا خامن بوج ني نيب خامكو موي ني وارا يكون هناك بوكي ديو نانا دا بوج نيب ماسي تا خامن نيب بلا دون اب طالب داي دون جولي نو نانا كوم لي ني ورا نديكو غور غور دوما فاتا يكون هناك جولي با سونو جولي وير با سونو جولي وير سونو طالب دورو مانا وير واي نانا نيب دو غانا دون طالب تا دون جولي نو كون نانا في يكون هناك تي غانغ نانا نيم تولي ني fexe ba lislaam yëpp nekk yoon say waaye lépp loo xam lu koy xajjal weer moom tënk ko te fas yéene bëgg taal bi yëpp maase ci nekk la ko foofu. xam nga daal li eh, war a nekk yiteen yite ñëpp mooy fexe ba lislaam bi ni ko rasulullahi digle moom nga xam ne leer na nañ ñi ne na amul lenn lu ci lënt ñaar lu ci lënt rek ci doomu aadama waaye suñ borom lim mu santaane wàcce ko ci alxuraan lenn lu lënt niw ci kon nag ne ñëm ne ñëpp maase ci xam ne ndegam mel lënt amul nag kon li ñu war a def góorgóorlu mooy fexe ba góorgóorlu ci lislaam jiwén taal bi jiwén Sëriñ Tuubaa itam ñu xam ne dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon gi mu doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax itam bañ na ko ba dafa tudd ko xam xaadimu rasul xaadimu rasul nag mooy jëw nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp a tàbbi ci biiram kon mboolem tarixa yëpp itam euh, na ko sëriñ bi daal santaane ko ne xam ne ne Sëriñ Tuubaa daana joxe yóbbu xaalis daana joxe yóbbu tijaan ak astasali yi ak yeneen yi ci def kon loolu liñ ci jëf wax ko ci laaj yi nga xam ne gouverneur général laajoon na ko ko itam ne ko ñan ñooy yoonu murit fu yoonu murit juddoo fan mooy barabam lépp jëntoon lislaam daa wax ne képp kuy wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam eh, na nga xam ne ci ak njabootam nga ko nee na fépp fu julli nekk tam fa la eh, fu julli ne rek fa ñoo di taalibe kon Sëriñ Tuubaa wutul wutul woon ak xàjjale ci diggam ak kenn koo xam ne mbokkum jullit la hmm. ci loolu itam fonk gi mu fonkoon rasulullahi sallallahu moo tax képp koo xam ne fonk nga Sëriñ Tuubaa xam ne boo bokk ci njabootu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bokk nga waaye nag boo dugg ci njabootu rasulullahi wala euh, amoo xamoo lay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu da maa ci biir ndax sëñ Tuubaa loolu moo doonoon muhimma kon loolu na ko ñëpp xam médaille bi nga xam ne bëggoon nañ ko ko takkal itam la taxoon sëriñ bi gànt ko dafa waxoon ne médaille bu ñu ko ko takkalee loolu day eh, firndeel ne xajju xajju dafa dem ci biir islam kon nag sëriñ bi nee na loolu kon nee na na ko kilifaam yu jëkkee defoon ndax sëriñ Tuubaa ko santaane woon kooku fi mos a nekkal ku ne itam si li nga ne xam ngeen ne mille cent quatre-vingt bi nga xamee ne yu mel nii xew na te booba sëriñ Abdoul Ahad Mbacké moo fi nekkoon sëriñ Moustapha Bassirou ñëw àndoon ko moom ci xew-xew bu ngeen doon nii Cheikh Abdoul Ahad Mbacké taxawaay bu ngeen ñi ci amoon mooy xam le ne sëriñ Tuubaa bu ku ñuy xoolal bu ku ñuy xeexal ku ñuy gëm la ku ñuy toppal ku ñuy yaakaar nee na comme moom tam da ngeen xam ne foofu rek ca la nekk dafa siiné ko wàcc ñaare bu dee ci digg mag bokk julli itam mooy al uxuwatul islamique yi itam mais da koy fet bi ndax loolu la fekkoon rawatina nag ak Cheikh Sidi Moukhtar bi nga xam ne mooy fu mujj nekk ci xalifu Serigne Touba mais fam ci nekkoon rek ci yaasal ko ci diggante bokk julli yi Serigne bi nee na nee na loola képp la fas yéene wéyal mhm. ci mboolem boori kër kër diine yëpp fas lépp àndaloo nekk benn nekk wenn xarit lépp lu ñu def mu mu mu dëppoog lislaam lépp lu ñu def mu dëppoog loo xam ne genn lu ñu war ak jiw di ci am ba soos la ko séenati tàggam. nee kon ñu ngi ñaanal Cheikh Sidi Moussa suñu doom doole leen tax na ci barkeem kon nañ xam ne yoon yi nga xam ne waxoon na ko muy ñëpp dégg ko nee na foofu rek la li ci dolli ko wax rek mooy jëm ci taalibe yi Serigne Touba Serigne bi nee na li nga xamante taalibe yëpp nag li mu yéene boppam rek lenn yéene te wax na boppam fi mu jëm wax na it ñu fas yéene doxalee dara desuñu ñaanal nag na xam ne yoon wii di yoonu Serigne Touba Serigne Touba dafa sanc ci yaar ak i tëdd na kon nag képp koo xam ne yaakaar nga Serigne Touba na nga xam ne lépp looy jëfale Serigne Touba yaar ak i tëdd moo ci war kon ñaanal loolu ñu koy digal taalib yi mais xam ne buñ tënkoo ci liggéey Serigne Touba nañ na ci yaar ak i tëdd sax ci taalib yi mboolem liñ bëgg ko wàcc nañ ko nag boobaa nañ xam na lu leen dal ñoo ko seen bopp kon nag nee na ñu ngi ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom doolu jàmm ci réew mi boole xoli biir yëpp mboolem ñi nga xam ne ñooy Kirgistan yi ci biir réew mi tam suñu borom gën a boole ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ne yaa rek daf nekk innamal mu'minuuna ixwatun mu ne ak tey inna shaytaana lakum aduwwun mu ne ak nax mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun rek innama mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun rek ndax ji ci inna inna inna seytaan lakum aduw mënu ko yàq. kon na na xam ne eh, lii di kër gi lislaam yi eh, defar ci ba jëm cee defar rek moo ci am waaye yàq ci moom kenn mënu ko ndax lu leen jiitu la te kilifa yi fi nekkoon fàggu nañ ko mën a ko kon nag moom ci liggéeyam ak bi mu fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa fas na ko yéene àndal bokk jullit yi fas ko yéene àndal bokk taalibe bi te teg teg ko nag ñëpp nag ci sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa teg ko ci ndénkaay la Sëriñ Tuubaa te fas ko yéene fas ko yéene te fas ci fas ci yéene dugal dara fas ci yéene génn dan lu bokk lu ci Sëriñ Tuubaa jé dugaloon la wala loo xam ne Sëriñ Tuubaa bëggatoo mu tàbbi ci ngir bañ a guddal daal mi ngi sant bu fekkee am naa lu ma ci wax doon naa Amen.